ñu dellusee ci waxi yonentu sallallahu alayhi wa kii kilifa xeet wi nga xam ci moom la lépp leere ku ko weddi alku te wax ni yàllaa ngi fépp daa bokk ci weddi yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon nañu moytandiku loolu wax ji yonent bi wax qaala sallallahu alayhi wa sallam yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla ila alsamaai dunia xiina yabqa thuluthu llayli al axir rawahu albuxaari wa muslim qaala al imam ibnu abdilbar rahimahu llah wa fi hada alxadis dalilu ala anna allaha azza wa jalla fi lsamai ala alarsh min fawqi sabaa samawat wa ilmihi fi kulli makan allahu akbar mbokk yi euh, al imam ibnu abdilbar dafa leeral xadis bi mu ne mu ne xadis bi day tegtale ni borom bi subhaanahu wa taala ma nga ca kaw asa ma nga ca kaw arasam sa mi ngi ci kaw asamaan ca kaw arasam sa te xam ni aras moo gën a kawe juróom-ñaari asamaan waaye nag wa ilmihi fi kulli makaan allahu akbar wa ilmihi fi kulli makaan xam-xamam mi ngi ci bépp bërëb te loolu li ko alquran di saxal dafa dafa bari wa huwa bi kulli shay'in alim wa huwa bi kulli shay'in alim borom bi tabaraka wa taala xam-xamam dafa mëdd lépp ndax moo sàkk lépp moo peeg lépp wa huwa alqaahiru fawqa ibaadi waaye ànd ak jëmmam ju tedd ja nag ma nga ca kaw arasam sa yemoo ca bu hmm? daan ni kama qaalat iljamaati ahlu sunna ahlu lfiq wal athar ñi nga xam ni ñoo ŋànk yoon wi muy ahlu sunna wal jamaa sunni ahlu sunna wal jamaa tàmbalee ko ca yonent ba alayhi ca saxaaba yi taabiin yi ñëw ba ilaa yawmina haada képp ku féttéerluwul jàpp ci yoonu alquran ak sunna yaa ngi ci ahlu sunna wal mu ne ahlul fiq wal athar ñii ñëpp lii lañ fas te mbooloo mi mooy ñi jub topp ci yoon wi képp koo xam ni dafa féttéerlu di wax ni yàlla mi ngi ci bépp place kooku pas-pasam ci boppam moo yàqu waaye képp koo xam yam nga ci li la yàlla fasloo ci al asmaa wa sifaat kooku li ngay fas ci bunt bi mooy yàlla yamoon ci xarasam sa comme ni mu ko waxee ci alquran wa xujjatuhum zawahiru alquran fi qawlihi arrahmanu ala al arshi stawa loolu la yàlla wax ñii ñëpp nag fiñ tënku ci lay wii ngir leeral seen position mooy dañoo delloo lépp ci alquranul karim ji yàlla wax ni arrahmanu ala al arshi stawa seen borom day yemoo na ca kaw arasam sa lii lu ko gën a leer mbokk yi bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbih waaw sëñ ñi ngi lay nuyu di la ziar xam naa danga ma envoyé ab audio yow ne taxul ma meen la daa mel ni saw tur affiché waaye lu mën a xew audio bi nga ma yónnee ki si wax dafa mel ni maam góor njaay la moom nag moom daa mel ni xam-xam bi des na rawatina nag ci bunt bi yaakaar naa ne ci ñoont bi daan wax ruway bu da boo muy ci lay bokk sëñ Rahman daa mel ni daana wax ne am na si ñooñ boo déggee ñu tàmbali rek nga xam ne ñii daanaka waruñoo wax waaye daa mel ni lu mel noonu moo xew fii boo xoolee ni ñuy diire baat yi rek wa ilmihi ak aljamaati ak yu bàyyi ci baat yi mu wax rek ni mu ko waxee sax du doon noonu am na menn mbokk mu waxee bi mu ko waxal fële ci alfurqaan ne ko yow <laughs> naxul sax te naa ko buub waaye ak lu mën a xew day jéem sa xel ne yàlla daa am mbirëb bu mu ne loolu nag lu wuuteeg aqidatu ahli sunna wal jamaa la ànd ak ne ñun waxuñu ne yàlla ngi ci béréb bépp loolu moom nun dañ ko moom muy tontu waaye xam na suñ tuut achaira yi moom waxuñu ne yàlla daa nekk ci bërëb yëpp de waaye dañu ne yàlla nekkul ci béréb loolu lañu wax waaye dima ci mawahibul qudus bu bu xuddoos bu sëñ Tuubaa di lay ne amul bërëb te loolu itam moo nekk ci kutubul ashaira boo demee ci Bagdaad yi ci alfarq booy lay wax ne ahlu sunna dëppoo nañ ci ne yàlla bërëb du ko feek alxaafidul Bayhaqi sax boo demee ci al asmaa wa sifaat wax ne bokk na ci li nga xam ne ahlu sunna eh, ay ay àndandoom tegtaloo nañ ko ne yàlla ni ko ci bërëb mooy xadis bi waxoon xamante bi am na foo xam ne day wax naa fa laysa fawqaka shay'un walaysa ba'daka walaysa doonaka shay'un maanaam di wane ne suñu borom subhanahu wa taala dara féetewu ko kaw dara féetewu ko suuf bay xaqee ne de indi benn taaliq daal ni bu fekkee dara féetewut kaw yàlla dara wu ko suuf nekkut ci béréb ndax ku nekk ci béréb xaw dara féetale kaw mbaa dara féetale suuf kon loolu tegtal bu leer bu leer te tegtal la boo xam ne mu ngi bàyyi ko ci yonent bi ci xadis bu wér bu wane ne suñu borom subhanahu euh, ma ñëw nag ci li ñu jéem a tegtal loolu mel ni istawa istawa ñun amuñu ci bu fekkoon ne fa am bu fekkoon dana woon rek dana woon rek al te noppi Eh, defe naa ne ay jafe-jafe du am ndax Maalik moom firiwut istiwa jéemu saa dégg ne yàlla ngi ci bërëb yooyu yëpp dégg ko ci ku ko ci dégg yow soo dégg ne boppam waaye Maalik moom comme ci yam buñ ci yemoon rek ay jafe-jafe du am waaye bëgg koo firee nag jëmm yàlla ju war ci yeneen jëmm foofa la problème bi koy wax jëlewuñ ko ci alxuraan ñu seetlu ne itam al istiwa am na fukki maanaa ak juróom tayit euh, maanaam mi nga xam ne moom la ci moom la waxee bi ta tànn ci luxa muy jëmm ju ci kaw jëm loolu mënta nekk fii na xamul ndax mënta nekk mooy boo ko defee da ngay indi jafe-jafe bu rëy rëy mooy fexe ba alquran nekk mutanaqat maanaam loo xam ne leen la day di boppam ndax bu wane istawa jëmm yàlla ji moo war ci kaw jëmm aras ji comme niñ koy niñ koy waxee ñoom léegi danañ la laaj kon ne la ah yow kat nga problème na suñu borom subhanahu wa taala kat ñëw na ci xadis yonent bi ne kii nga xam ne mi ngi julli suñu borom subhanahu wa taala mi ngi diggam ak xibla xanaa kon yow sa la ji moom daa ne ci suuf ne ci kaw nan ngay def ak wa huwa allahu fi samawati wa fil ardi yaalamu sirrakum wa jahrakum wa yaalamu ma taksibun waxut fi samaa yi dong di daa wax wa fil ardi tamit kon yow xanaa bu fekkee noonu ngay noonu rek ngay dégg yow yow am nga jafe-jafe wala fa ayna watu fa ayna watu wallu fa ayna watu wallu fa xamma wajhullah bu ngeen jublu rek <laughs> foofa mel na ni kon bu fekkee déggin woowu rek la kon nan nga def bu féetli ko benn côté day mel ni kon côté yëpp lay war a ne kon bu fekkee yow noonu ngay dégg moo tax ahlu na xeeti aay yëpp nga xam ne day wane ne zaahir bi boo dee xool zaahir bi li mën nga caa dégg luy nuru bërëb dañ koy tawil loolu nag jëgoowut ci wàllu asamaan dong ñi nga xam ne ñoo ko féetale asamaan ñooñu dañoo ñooñu mutanaaqidoona la dañuy weddi seen bopp ndax li tax ñuy weddi seen bopp mooy am na yeneen yu mel noonu yoo xam ne buñ ko toppoon ci seen déggin woowu dañuy wax ne yàlla ngi ci suuf te yooyu dañ koy tawil nañu nangoo tawil buñ ko nangu woon tawil foofee ca yee ca des itam duñu am jafe dañoo dañoo def tanaaxut mooy nangu tawil fenn te doo ko nangu feneen moo tax ibnu xajar al asqalaani boo demee ci xarxul baar yi ci hadis bii ma wax léegi ci ginnaaw day wax ne eh, yàq na mboolem li nga xam ne ñi wax ne yàlla nga ci kaw aras lañ lépp hadis bi yàq na ko ndax def ba wax ne yàlla noo noo def ba tawil hadis bii nga xam ne day saahir bu day nuru ne yàlla nga ci suuf war koo mën a def itam ba tawil lépp loo indi luy wane ne yàlla mu ci kaw suuf mu ngi ci kaw euh, defe naa li gënoon a yomb am na benn xadis sax boo xam ne solo nga ci yont bi te it wér na yont bi naa alquran wàccul ngir leen li di weddi la ca des lu ngeen xam man ngeen koy jëfe waaye itam lu ngeen xamut def leen ca delloo leen ko ka ko xam waaye dugg si aay yoo xam ne xamu maanaam dégg sa déggum xel mooy réer ñu bëree bëri moo mel ni nag waa ji tudd na Ibn Abdul Bar Ibn Abdul Bar nag kilifa la bokkul nag ci as-salaf saalih moom waaye benn borom xam la woon ci borom xam Maalik yu mag yi am na nag euh, ay ay njuumte yoo xam ne borom xam yi leeral nañ ko boo demee ci alxaafidu subki tabaqaatu shafiiya defe naa am na benn kenn ku indi tarjumaam mu doon wax loolu li mu wax fii nii da cee wuuteeg kilifa yu malik yu mag yëpp ñu bëree bëri xëy na kilifa maalike yu mag yi ci ay jamonoom ñaar rek nga ci mën a génne ñu doon wax ju mel nii ci ni borom ni borom ko xam boobu waxee booy demee sax ci saydu saydul xaatar bu ibnul jawzi mi ngi naa wala qad ajibtu li rajulin andalusiyin yuqaalu lahu ibnu abdil barri sannafa kitaaba tamhidi fa zakara fa zakara fi xadisa nuzuli ila samaai dunia fa qaala hada yadullu ala an allaha taala ala al arsh nee na ibnul jawzi nee na yéem na waa ji ñuy wax ibnu abdul barri téere taalif téere bu ñu wax tamhiid mu tudd ko ne xadis bi nga xam ne yonent bi ko wax day wane ne sunu borom subhanahu wa day wàcc loolu day tegtal ne kon day sunu borom subhanahu wa eh, ci kaw aras ndax mu toon loolu du mën a wax ne kon mi ngi wàcc ndax koy wàcc xëy na kon <laughs> li mu bëgg a wax mooy ku ne ci kaw moo mën a mu Ibnu Jawzi ne wa hada kalaamu jaahil ne lii waxi ku dara la loolu la Ibnul Jawzi wax xaafis bu mag la moom itam borom xam la ci wàllu asar ponkal la waaye xam-xam yu bari sax nag euh, jàmbaar la euh, waaye Ibnu Abdul bari doonte am na ay rëcc-rëcc ci côté dafa bokkut sax ak waxaab yi pas-pas ci misaal rek bu ma ko jëlee fii ci xadiisu nuzul bi nga xam ne moom la waa ji doon tudd Euh, ibnu abdul barri euh, daa bokk ci lam ca wax wane ne sunu borom subhanahu wa taala bokk na ci li xadis bi mën a teg ci mooy du jëmmi sunu borom jëm mooy ñëw waaye mbiram mooy ñëw moo tax demee ci tamxiit gi nga xam ne moom waa ji doon tudd ma nga naa am na benn asar bu muy askan Malik moom Ibn Abdul Bari asar bi nag am na ay jafe-jafe ci sanad bi waaye Ibn Abdul Bari moom teewul mu askan ko Malik nee su ila anil xadis inna laaha yanzilu fi samaai ila samaai dunya yanzilu fi leyli ila samaai dunya fa qaala malikun yatanazzalu amruh mu ne laaj nañ Malik ne ko yàlla ka subhaanahu wa dana wàcc ci asamaani adduna ji Malik nga xam kon moom jëppewu ko jëm suñ borom ba ji subhanahu wa taala mooy wàcc waaye mbiram mooy wàcc mbiram mbirum mbirum suñu borom loolu nag du kiiman surtout sax yàlla day waxe noonu ci bërëb yu bëree bëri yaakaar naa xadiisu nuzuul xëy na taxumaa jóg tey waaye am na ci borom xam yu ko leeral ba wane ne lii Malick di wax lu mën a nel li ñuy askan Malick te Ibn Abdul Barri ñii li ci xorom mooy dañoo ne waqad yaxtamilu an yakuna kama qaala Malik maanaam xadis bu nekk mën naa nekk ni ko Malik waxe waaw maanaam ne yërmande yàlla yooyu ñooy wàcc waaye du jëmatul borom Ibnu Abdul Bari mi nga xam ne moom la moom góor di tudd ñu bàyyi xel bi ci bërëb yu bëree bëri te loolu yëbalewu ko ci Malik dong waaye ci borom xame xadis yi la leen ko askan moo tax boo demee ci tamit xaaju juróom-ñaareel bi page 143 mi ngi naan qaala qawmun min ahli l athari aydan innahu yanzilu amru wa tanzilu rahmatu nee na am na ñun ñoo xam ne ci gaa yi xaddis yi lañ nee nañ la muy tekk rek mooy mbirum suñ borom ak ci yërmandeem mooy wàcc waaye waxuñu la jëmm jëm mooy wàcc bal sax ñi nga xam ne ñoo ko dégg di ko xam yi dégg Ibn Abdul Bari da leen raddu nee na Naim nee na yanzilu bi te loolu mooy li waxee bi wax mooy jëm yàlla ci moom mooy wàcc Ibn Abdul Bari nee na borom xam yi nga xam ne ñoom dégg lii moom du waxi dara dafa ndax loolu eh, mu ne eh, ndax loolu takk yi yàlla maa ngi jégalu dama am ko ma woo ci may def vocal bu njëkk bi ndax nee na loolu kayfiye la wutal yàlla ab kayfiye la te ahlu sunna wal jamaa ñoom loolu bokkut ci seeni mbir ndax wax na yàlla jëm yàlla ji may wàcc loolu day fekk yàlla euh, day fekk yàlla mu roon ko wax daf ko mën a wër ndax bu fekkee wàcc na ci wër na ko ci ni mu ko moom te loolu mënta am ci yàlla moo tax mu ne qaala abu omar laysa hada bi cheyin inda ahli lfahmi min ahli sunnati li anna hada kayfiyatun wa hum yazrauna minha li annaha la illa fi ma yuxaasu bihi iyaanan waqad jalla waqad jalla allahu taala an zalik ñu bàyyi ne ñu bàyyi xel ne ibnu abdul bari bokk na ci ay fasasam comme ni mu ko leerali ci al istizkar ak tamhid mooy yàlla du jëmm du koy yëngutu ay xeeti toxo yi nga xam ne euh, moom la waxaa bi wax yëpp moom bukku ci ay mbiram maanaam moom day wax sax majaaz ci waxam majaaz da koy wax ibnu abdul bari Euh, maji oog yooyu nu mu ko déggee ni ko waxee bi waxee du benn sifaat yu bari itam da koy da koy tawil waaye euh, al istiwa umum kenn ku ci mën a tegtaloo boo wane ne suñu borom subhanahu wa taala ngi ci béréb amut ñu bari ci ahlu sunna ne dañuy dañ sax duñ dugg sax ci maanaam dañuy tax wér yàlla xam lu ci namm ndax maanaam daa bari te boo duggee ci di ko wutal mel ne maanaam man nga caa moo tax ñu bari ci ma xam noonu ñu ko firee yemoo rek nga di bàyyi noonu moo gën a wóor di dugg ci maanaa yi euh, ndax dugg ci maanaa yi mën na laa indil nga wax ci maanaa yam mën a doon nga wax ca boo xam ne amoo cuulu la leer te baat la boo xam ne daa bari maanaa yu mën a am te ñi koy tax di yëpp ci waxaab yi di wax daa istiqraar la loola moom daa dëppoo wutal sax aqiidatu ahli si wal jamaa am na nag ñu ci yor maanaa yoo xam ne mën naa ne waaye bi boobu mu bukk ci ñi wax kuy wax naa yàlla daa toog wala dafa istaqaar yooyu yëpp aqida la boo xam ne comme ni ko xal xaafis albayhaqi indee ci asar boobu aqida la boo xam ne daa dëppwut ak sax aqida bi nga xam ne moo wér waaye bi nga xam ne itam ahlu sunna wal jamaa eh, ci lañ ne